maa ngi leen di fay bu baax. waaw maa ngi leen di fay leen xanaa kontaan ak mbégte rek am lu sedd bi sama xol te ma ne ba ma juddoo ba léegi mbégte bi ma am te musuma ko am ndax sama doom ji dafa maa ma yërëm ma jege ma waaw Sénégal jaay ñëpp xam ko ne fu ñu wax ne dee la yaayam dee la yaayam loolu muy wax rek moom la dund kon na ma di ko ñaanal sëyam bii yàlla na gën ci sëy yi waaw yàlla bokk sëy yi takkee euh, arrache doom doom doom bëgg yaayam bëgg papam bëgg fameem fameem rek ko ñor da daal deful deful euh, kii mbedd lépp rek ci biir kër gi lu mu am ne sama yaay sama papa sama famille rek boo waral tey bisam bi tey jii. kona nag ma di ak jam ak salaam ak sëyam bi yàlla na dem ba raamaan moom jëkkëram ñu leen di weer di weer ndax sëy rek lay def ndax sëy la doon man mi yaay ba ma tooy ba tey jóguma kon nag Dieyla gis na la ci yaayam te boo naan day takki jabar da ngay xool ku yaayam sëy nga takk te mooy Dieyla waaw. Euh, tey sa doom. coow loolu ba mu ñëwee yow mi nga xamante ne yaay waay juróom xam na xolu doom ak yaay ni ñu jege yow naka nga sama yaram sax ndax te dara xam naa sama doom respecté naa sama doom te coow sax tey taxuñ noo jóg tey bis bi rek moo ñor loolu nag am na benn affaire tey nan dem ci bis bi rek bis moo ñor loolu am ñu seen temps sax bis bi rek waaw yaas lim ñu wan yaas wan nañu ngor wan nañu sutura wan nañu ku baax ndax ba àndee suñu doom ak léegi leen mat si kett mos ta dox benn tànku caaxaan mos ta dox benn bu ñàkk fulla ba tey bi nga xam ne yàlla tudd seen diggante mu seet ba xam ne bëgg na suñu doom xam ne bëgg na ko barki dem la ñu waxtaane barki dem la ko waxtaane ñu def ko tey kon xam ne kon loolu tey bu ñu deewoon tey ji si guddi tey gi dañu taal ndax teg nañ jay la ci loxo yaas dañuy bég duñ ci am benn ti duñ ci am benn tax dañoo kontaan yaas ñu koy gërëm di ko sant xam ne tey ji suñu xol seet na bu doon tey yaas moom tey bu bëggoon tey jëlee tey affaire am bépp ci këram lay xewee ndax mën na ko ndey mën na ko bàyyi ginnaaw yàlla yonent bi ak ay waajuram tey fu jaay la egg rek yaas la rëccu luñ ko joxe yow buñ ko rëccoo lu ko ko may dañ ko wóolu gis ci moom sartu yu bari nag yu ñu neex moo tax ñu jox ko suñu doom xam nga nee na olof jaay nee na nag boolu bëjënam bu ko xesanoo mooy ñun suñu diggante yaas sama doom sama doom li mu gis ci man rek lay séyee ndax gis na ni may séyee doful da nga dox ba jël sa tànk yaay ne ci ne ci ba doon mag xam nga li sa yaay sëy soo rek ngay jaar ndax sa yaay dafa seen dafa jeex yaay ba ma toogee ba tey musuma kenn musuma fay ne aw ma leen naqar àdduna lu bëggal seen papa lu ma xëy suba ba ngoon lu neex seen papa laa ciy dox moo tax tey sama doom il faut ñu mel nii ndax nee nan boo bëggee jabar xoolal ci ki yaayam sëy nga xool te jare loolu la def day sëy ba jeex ak sëñ Tuubaa Mbàkke te ren ko waxaat déedéet taxul ñu profité mariage bi de ndax ñu toolool dérangé wuñu ñun pour ko tool ñu profité ko booba booba dañu waxul waxi bëgg waaye bu bëggee ñu may ko ñun profité woon ko loolu suñu yoon nekku daala yëgaluñu ko suñu yaram faaleluñu ko bokkuñu ko ñu xëy bi la ñuy wax tey coolool suñu yoon nekku ci lijjantiwuñu leen sax xamuñu leen xamuñu ñi ngeen ñu ñi ngeen ñu déggee yéen sax gis nañ leen tey nii booba ménage na bëggante wut ak moom heure bi la ko bëgg itam ñu may ko ko bëgg ñëw ko ko may waaw ñun lu baax duñ ko xaar lu baax duñ ko xaar yaas ak Jalle génnuñu yaas ak Jalle dañu am di liggéey sutura ngor dañoo dem ba léegi ñu waxtaan ñu xam na yaas ba naa am jabar Jalle war naa mën am sëy ndaxte boo nekk ci aar bi da ngaa war am borom kër mu la soutenir kenn coow du la topp moo tax ñu def sëy bi. waaw Jalle bi dina ko sëy ndax rakkam rakk rakkaatam mi ngi sëy Jalle rakkam rakkaatam mi ngi sëy sama caat moo ngi sey te lu baax la fay di ko wax tànkaan ak Jalle la. ñu sëy lañ xam mu nga ñu sëy ba jeex. ñun duñ def loolu ñooñu sëy tas dañoo xamu sëy xamuñu sëy ñun dañoo xam sëy ba jeex ñu xas sey ba jeex sama doom ñoo bokk ndey ak baay caat ba taaw ñoo bokk ndey ak baay fii deel tollu sëy fii a tollu sëy ba léegi te génn ma kër kon deel day sëy ba ñu ñun xamuñu sëy tas sëy tas danga koy doon wala nga nàmp ko te doonu ko nàmp ko xamu ko kon bu say tas. waaw ñu gis ne ñu gis célébrité yu bëri bu ñuy marié. dañuy dégg ñu ne may nañ ko temps. may nañ ko oto may nañ ko ay millions. ñu siwal ko ci réseaux sociaux. waaw mais ñu gis ne Dieyna ba tey kenn xamul ko ko ko bëgg na rek ñu may ko jabar yaas yaas li mu def li mu def ko compté moo bu may yaas na Dieyla rëy li mu def ci Dieyla kenn xamul nu mu toll mënuñu koo lim waaw. bu ñu gisee ni ngay waxee si yaas. waaw dama ci xër dama ci xeer maa gën a bëgg sa jaay la aw ma ci moom sax suñu tudd yaa sax damay lox ak suñ tubaab màgg jërëjëf maman ñu ngi lay ndokkeel si bés bi di la féliciter waaw merci merci merci